dali nag jàmm ñu ànd xëy yéer yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien la turbine libération vox populi la waa grand place mboolem yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo ñépp xëy ci Ousmane tron Dieng mi nga xam ne dañu ko doon fàttali ci ay ñaan journal bii di réew mi quotidien mu ñu xamal nañu moo taxit Ousmane Tanor Dieng daan dajale mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci langue politique gi ak socialiste yi yéenekaay gii di laas mu ñu xamal nañu njiitu réew mi di président Macky Sall taxawaayam fësoon na fa lool ak ñi nga xam ne ñooy ku jéggi rawatina Idrissa Seck yéen kaay groupe promo consulting bi mu ñu xamal ñu Ousmane Tanor Dieng mi nga xam ne ci kilifteefu Aminata Mbengue Ndiaye dafa woo socialiste yi ak naataangay Ousmane Tanor Dieng yi ak i mbokkam ngir nag ñu daal di amal ndaje moo xam ne dañu ko si fàttaliku maanaam di ko defal ay ñaan journal bi nee na Ousmane Tanor Dieng daat nay dajale ki nga xam ne mooy Macky Sall ak Idrissa Seck yéen a kaay gi mu ñu xamal laan ñu Idrissa Seck nag ca ndaje ma ginnaaw bi mu jëlee kàddu la mu xamle nee na Ousmane Tanor Dieng moomeelu Sénégal yi yëpp sampu la journal bii di Vox Populi mu ñu xamal ñu ca ndaje ma ginnaaw Idrissa Seck ak Doudou Wade Hadjibou Soumaré Malick Gakou ba ci Bamba Fall ñoom ñëpp maanaam ñëwoon nañu nuyoo ak Macky Sall journal bi mu ñu xamal nañu nuyoo Macky Sall ak Idrissa Seck fësoon na lool kenn ku nekk di muuñ laas yéene kaay mu ñu xamal nañu Macky Sall kay da doon rogo jeeru ki nga xam ne maanaam mooy Idrissa Seck maanaam daf ko doon piis ndax ci ay kàddoom dem na sax bay wax ne man ak Idrissa Seck maanaam ay témoin lañ kane Ousmane Tanor la woon koo xamante ni ku amoon yar ko ku am personnalité ba pare am bàmmeelu biira moom njiitu réew mi dem sax bay wax ne Abdoulaye Wade ku joxoon cër Ousmane Tanor Dieng la yéen a gi de la turbine mu ñu xamal naa ñu ca ndaje ma ci la Macky Sall daal di nag profité daal di woo ñi nga xam ne ñooy opposition bi yëkkati ay kàddu daadi wax ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te intérêt réew mi kenn ku nekk war na see bay aw laajam journal bi mu ñu xamal naa ñu li am ba des mooy Barthélémy Dias ak Khalifa Sall ñoom teewuñu woon sa ndaje ma réew mi quotidien mu ñu xamal naa ñu ñaar ñooñu maanaam kenn invité wu leen woon yéen a kaay gi délibération bàyyi mbir moome nag wax ci mbirum pétrole ak gaz bu Sénégal bi nga xam ne coow li lëmbaaje woon na réew mi ginaaw nag doyen des juges bi ñu ko joxee dossier bi liggéey ba nga xam ne maanaam doon na ko si def jamono ji nag daat na kay matal journal bi nee na procureur bi nag jamono ji moom moo yor cëggul guyam mooy xool ba xam dossier bi daf koy classé sans suite wala nag dafay topp koo xam ne jàpp na ne bokk na ci ñuy def giraawaali gi yéen kaay gi di direct ci lu jëm ji di coronavirus fekk fa général bu organisation mondiale de ñoom nag la ñu xamle nee nañu Afrique jamono jamono ji bay boo ñu jël seeni matukaay maanaam bay boo ñu préparé wu yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu xëy dikk ci mbirum Guy mi nga xam ne nag moom ma ngi woo bi ngir nag ñu daal di yëkkati seeni kàddu ci mbiri Guy Marius Sagna ndax moom doomu Jean Paul Dias bi jàpp na ne Guy Marius li mu nekk catholique moo tax mu des si kaso bi ndax ña ñu ko jàppandooloon ñépp la ñu bàyyi ba mu des moom ba tey ci biir journal bi ñu fekk fa Serigne Mbacké Ndiaye moom nag la mu xamle ne ne yéenewul Guy Marius benn yoon kaso waaye nag ñi nga xamante ni ñooy wax ne deful dara ñu nag bu ñu jàppee ne deful dara nañu dem def la nga xamante ni moom la Guy Marius Sagna defoon moom Serigne Mbacké Ndiaye yemul foofu daal nay wax ci arrêté Ousmane Ngom bi nga xamante ni nag joteewul dara ak liberté askan wi daal di wax ne nag constitution bi nga xamante ni moom mooy askan wi ñu daal di marche constitution boobee nag moom moo sant préfet ngir mu mën a tere ay manifestation ba tey ci biir journal bi moom Serigne Mbacké Ndiaye daal di wax ne bëri na ñoo xamante ni àndoon nañ ci arrêté Ousmane Ngom bi jamono ja nga xam ne ñoo ngi ànd ak Abdoulaye Wade te jamono ji nag ñoo ngi koy ŋàññi loole nag ci boppam moo tegewul fenn ba tey ci biir biir journal bi di Libération ak L'As ak Vox Populi ñu fekk fa Mohamed Boun Abdallah jonn moom nag la mu xamle nee na diggante Macky Sall ak askanu Sénégal diggante bi jeexagul 2035 Macky Sall dina ànd ak askanu Sénégal di doxal moom Mohamed Boun Abdallah jonn dafa mel ni nag loole nag mooy firndeel na Macky Sall ñetteelu mandat la bëgg ci réew mi journal bi nee na kàddu yooyu nag ma nga ko xamale ca géej waaye ginnaaw ab forum boo xam ne ndawi APR yi ñoo ko doon amal ba tey ci biir journal bi mu ñu xamal ñu Moustapha Diakhaté mi nga xam ne ay jamono nag jiite woon groupe parlementaire benn bokk yaakaar ñooñu Cheikh Omar Anne daat nañuy dal ci kawam la ñu xamle ne ne Moustapha Diakhaté ba muy nekk député moom nag dafa ñëwoon ci Cheikh Omar Anne ngir nag bëgg faa gañe ay marché loolee la ko Cheikh Omar Anne lànkaloon loolee moo tax ba léegi nii nag mu daal di am lum ko ëmbal ba tey ci biir journal bi di sunu làmb ñu fekk fa Bombardier moom nag la mu xamle ne ne jamono ji bu ñu waxantee dëgg làmb ji nag daat na yàqu yaxeet ci crise la nekk état bu Sénégal nag moo war a jëlee làmb ji ci loxoy Aliou Sarr mi nga xam ne moo jiite CNG moom Bombardier nag na ne daal daaka lépp loo xam ne jëm na ci wàllum bëree